tóor Xaasim laay maa ngi tóor asalaamaaleykum mbokk yi yéen ñuy suivre ci seen site internet luttetv.com tey vendredi 1er février 2019 ñu ñëw yéen ci yéenekaay yi comme ni ñu koy defee rek Bokar maa ngi lay nuyu Lamine maa ngi lay nuyu du nuyu mbokk Sénégal du nuyu mbokk internet yi yëpp mm-hmm. ni nga ko waxee janvier deen ñoo ngi ci février te le vendredi premier février 2019 ñu si ànd ak MSD Prestige ak MSD Impact. MSD Prestige MSD Impact comme ni ñu koy waxee rek ñuy jaay oto oto yu bees tàq seen oto di jógee Canada marque oto boo soxla soo leen woowee ñu jaay la ko même suñ ko amul sax mën nañ la ko jëndalee Canada andi la ko fii nii pièce détachée comme ni ma ko waxee rek oto boo yor booy wër pièce boo demee ci ñoom ñu jaay ko. waaw dañuy jaay oto dañuy jaay pièce détachée waaye dañuy luye ni ngeen ko xamee campagne yi jub si na. fii ak ñetti fan si des ku soxla oto boo fa demee dinañ la luye oto bu mucc ayib. te sax candidat laa ci élection yi yëgoon de xam naa ne waa Looro kese ñoo lay wooteel ndax kenn xamula ñi xew ñi TV yëpp nag man la wooteel ma wax la ko tey nag yow kon yow wéroo seen numéro téléphone ko ko soxla mën ngaa def 77 227 07 84 beneen numéro bi mën ngaa def 77 393 33. 10 ñu ñëw ci journal sunu lamb bi journal sunu lamb bi Modou Lo la xëy fësal ak ki nga xamante ne mooy adversaire am di Eumeu seen gars yi nag dañoo xëy samp ab laaj ni combat bi ndax danañ ko finaliser tey ci ci ci premier février bi. waaw Modou Lo ak kii di Eumeu Sène tey lañ ko war a finaliser loolu la journal bi xëy di ñu xamal Soc Royal annoncé pour le 28 juillet maanaam daal le 28 juillet lañ war a bëri waaye finalisation bi tey la war a nekk Lamine. ni nga ko waxee rek kar ndax ki nga xamante ne mooy ñi Ngingue muy agent wu muy agent wu Modou Lo ñun ñëpp xam ko combat bi passé moom moo ko signé moom dafa ñu waxoon ni la première février combat bi nag ci lañ ciy dugg ñun ñu dem waajali waaw jëmal jëmal le 28 juillet. waaw kon maanaam daal gars yi dinañ dem këram seeti ko se wara a war a fas yéene waxtaan ak moom. Mm-hmm. si lu jëm si combat bi. Mm-hmm. comme ni nga ko waxee gën nañ si combat jub combat bi rek am nañ yaakaar ne daal. combat bi dina yemb tey Lamine. am nañ yaakaar ne dinañ yemb tey ki ko nar a yembal nag mooy Moustapha Diop bu bu bu TNT bi moom moo tëgg combat boobu noonu waaye am naa yaakaar ne combat bi dana taxaw démb ndax Papis Xarañ Lo am na luñ ci luñ ci luñ jot a wax ba ñoom yaakaar naa ne sóobu ci wàccaay boobu. waaw ni nga ko waxee rek Papis wax na si Papis àdduna si am nañ yaakaar daal Lamine combat bi dina taxaw parce que combat bi fi mu toll nii. waxuma la Modou waaye Eumeu Sène moo ko gën a moo ko moo ko gën a bëgg parce que li lii problème bi mooy que ne day bëgg a dindi gàkk gàkk bi nekk si moom mooy defet bi nga xamante ne tey Modou teg na ko ko te leer na ko ne li mu desee si làmb bëriwul kon foo mu effacé defet boobu rek war a mën a jublu si leneen du mën a ñàkk Birahim Ndiaye tamit journal bi wan nañu ko mu yaatal ak moom ci lu bëree bare bëri were waaye fa muy commencé daal mooy école am laaj nañ ko ko yan jafe-jafe lañ fay lañ fay am waaye jafe yëpp ñëw na ci bu ñu jógee ci loolu laaj ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Modou Lo boobu nan la ko gisee woon waaye lim lim njëkk jàpp mooy Balla Gaye ak mooloo Lo bokkar liñ li li nekk ci ñoom ci bëre sax waneegu ko gisagul loolu ci ci làmb waaw suñu papa Birame Ndiaye ñu koy nuyu de passage moom lim xamle ne mooy que ne ñaari mbër ku si nekk li ne si yow si bëre waneegoo ko waaw waaye loolu noonu dafay dafa day nekk loo xamante ne la mi day am parce que boo seetloo mbër bi nga xamante ne tey benn yoon lay bëri si saison mm. pour nga gis mën a bërim dëgg dëgg dëgg day jafe xanaa contact nga mën a dem sax waaye bu te bu dee contact sax ñoom contact duñ nangoo jël yenn risques yi parce que dañuy bañ a gaañook yeneen ak yeneen hmm. waaye mbër bu si doon am lu war a mot ñetti combat ci saison bi nit ñi danañ xam sa mën a bëri du mën a ñàkk ndax moom nee na yàgg na leen a di bëre waaye ñoom ñaar mosuñu fi mosuñoo daje ci seen biir bëre waaye xam na ni ay bërekat dëgg mooy Balla Gaye ak Modou loolu moom Euh, suñu papa Birame Ndiaye loolu bu ko waxee tamit dafa nekk loo xamante ni tey gis la lu mu constaté la parce que comme yàgg na leen yàgg na tëgg ay mbapat ñaari mbëri di ñëw di waliyaan si di fa teew muy gis seen bëri kon moom war na mën a seede loolu war na mën a seede loolu leneen loo xamante ne jàpp na ko ci biir combat bi mooy tànk boobu Modou Lo di teg muy tànk gauche bi ndax avant combat bi ñi ci doon wax bari nañ nee na loolu dafa arrangé Balla Gaye trop trop trop moo tax bëri ak Balla Gaye 2 muy am ay jafe waaw xam nga bëri tam dafa nekk la nga xamante ni affaire de stratégie la bu fekkee ne yow li nga mënee dafa arrangé dafa arrangé sa adversaire il faut nga jéem a jéem a wut solution. pour pour pour dindi ko suñ papa Birahim Ndiaye nag xam na loolu noonu waxoon na ko mu waxaat na ko fii si biir si biir journal suñu làmb. boo xool sax yenn journal yi doon nañ ko laaj mu loolu bari bari ñun bi ñu tourné ak moom affaire bi doon nañ ko wax tànk gauche ku ko tegal Balla Gaye numéro 2 ñi ko ñi ko tegal tànk gose yëpp ñi ci ëpp da leen a daan ñi ko andil ay jafe-jafe mooy ñi teg tànk droite boo xool Gris Bordeaux bi passé mu gagné ko par avertissement tànk droit lay teg Eumeu Sène mi ko daan ñaari yoon tànk droite lay teg mu mel ne tànk droite daal moo gën a ñàkk arrangé Balla Gaye waaw Balla Gaye tànk droite bu ko ñàkkee arrangé Modou Lo ku ko xam-xam ne dafa mën a tànk parce que ñi ko yàgg a seetaan wala ñi ko yàgg a fekk si tefes muy bëri di contact dañ xam ne da daan di dajeeg mbër jox ko tànkam te du su mën dara mais li ñu naan nag ne loo loo am fort fort fort di nga gis di nga gis koo xamante ni te yow yow sa fort da koy arrangé muy Balla Gaye Balla Gaye tey boo jiitalee tànk ndeyjoor xëy na du mën a bëre ni mu war a mën a bëre ak yow mais comme gis nga ko si combat bi nii Modou Lo tànk càmmoñ la andi gis nga li combat bi jur. du mën a ñàkk moo tax journal bi laaj nañ ko ba xam Modou bu changé wul ni tànk bi mu teg buy bëri ak Balla Gaye ndax dina ko daal mu ne waxul loolu mais yaakaarul ni daal bu teg tànk gauche boobu noonu dina mën lu bëri ci Balla Gaye waaw effectivement bu su fekkee ne Modou Lo tànk boobu noonu moom la mënee di ko teg te tànk boobu noonu dafa arrangé Balla Gaye pour Modou Lo mën ko daan si bëri dina ja parce que bu dee Modou Lo loolooy loolu loolu loolu la mënee te Balla Gaye loolu nekk li nga xamante ni tey loolu kese moom tamit la mënee moom tamit nga jiital tànk càmmoñ ngir mu mën a bëreek loolu dina posé wu nit ñi dinañ posé wu question pour xam ndax est a daan kii di Balla Gaye leeral na ko sax ba moo daloon Sa Thiès bi mu bëreek Boy Niang waaw diggante a Thiès ak Boy Niang gis nga ni mu woon combat bi ñu bëri fi xaar ne woon combat bi ak fii combat bi mujj see moo loolu noonu mais ñu wax la rek mbër moom fekk yaa ngi am benn mënin bu nga xamante ni tey mënoo ko changé pour nga pour nga daan yéen mbër yi day jafe parce que am na mbër yoo xamante ne bu dee tànk càmmoñ nga mënee wala bu dee tànk ndeejoor nga mënee di ko bëree rek bëree rek su fekkee ne mbër boobu noonu da ko mën a contrecarrer wala loolay bëri pour nga daan ko dina jafe leneen loo xamante ne laaj nañ ko ko mooy mystique bi keroog ku ne xam na ne bari woon na ci géew bi laaj nañ ko ci combat bi ba xam mystique feeñ na ci wala feeñu ci waaye moom waaw moom nee na mystique feeñul même bu ñu gisee mystique bi bëri lool ba tax combat bi guddee moom si jàpp nee na mystique feeñul jour combat boobu noonu diggante Modou Lo ak Balla Gaye diggante Modou Lo ak Balla Gaye dafa jeex rek ñu naan Modou ak Eumeu Sène nee na bu yoroon Modou lay jël bu Eumeu Sène bi waaw effectivement nee na bu yoroon fi mu toll nii moo nekk li nga xamante ni tey amateurs yi ñu ngi koy xaarandi pour Modou Lo mën a ñëwaat tamit foo mu ñëw daan Kirya Massène

bés bu ñu ko defaree rek dina nekk ci roi des waaw Reug Reug Gris 2 nekk na combat ba nga xamante ni Lamine képp kuy amateur lamb da nga ko yàkkamti parce que dafa nekk ñaari ndaanaan ñaari xale yi nga xamante ni tey dañoo prouvé parce que ku si nekk tey buñ buñ nee amagoo defet kon ça veut dire que yaa ngi échelonné yaa ngi liggéey mm-hmm. mais combat boobu Lamine euh, ragal naa ne nit ñi dinañ si am lu leen bett mm-hmm. waaw ragal naa ko kon boobu da tee ko foofu rek ba leneen loo xamante ne wax na ko muy Birahim Ndiaye ba léegi rek borom xam-xam bi mooy wax nee na nit mënul arrêté Boy Niang bu daanee Lac de Guiers numéro 2 su nee na su daanee Lac 2 moom kenn mënu ko arrêté waaw kenn mënu ko arrêté mooy ça veut dire que bu daanee Lac de Guiers ni tey mën nga ko bañ si làmb même bu dul bañ gi naqaree daan gi lay wax parce que Lac booy wax mbër bi gën a ji Lac de numéro 2 waaw parce que il est défensif dafa nekk ko nga xamante ni tey day calculer day jël temps di calculer di calculer kon kooku noonu tey foo nga nekk mbër boo xamante ni ngay nii tey euh, nu ma ko mën a waxee foo nga am xadar foo nga am conviction foo nga am détermination bañ ko déglu si dara pour mën a bëreek moom pour daan ko mais boo ñëwee di ko déglu kooku moom combat bi mën na niil parce que gis nañ ne Lac de Guiers dafa bëri lim dafa bëri lim niir Lamine kon Boy Niang bu génnee si digganteem ak Lac de Guiers 2 amatul mbër bu ko mën a arrêté si comme ni nga ko waxee rek Bokar Lac de Guiers numéro 2 même bu fekkee nul na tamit dafa naqaree daan de am doole. problème bi mooy Lac dafa am doole te ñi naan dafa défensif dëgg la défensif na sax mais day song bari na ñoo xam da leen a song moog nees dañoo xeex mu sàcc ko Tafatine la nga ko song Issa Pouye la ko song ak kan Yékini Junior moom ñu am ñoom ñaar dañoo jaw jàppante léegi kay lay calcul bi bari sax mais tamit songukat la comme booy ñaar dañuy wax dafa défensif mais booy xool ay combat préliminaire am ci bari moo doon songu waaw mooy li ma la wax rek mooy xam naa ne daal combat bi tey comme Boy Niang mooy ki nga ne tey moo nekk si yoon bëgg a yéeg parce que Lac da ko may chance. Boy Niang tey mu am moo xam ne loolu am mais en tout cas lépp li suñu papa Birame Ndiaye wax la rek. bu génnee si combat bi nii kenn mënatu ko na ko arrêté wala wala bëgg naa arrêté waate Malick Niang la laajte Sa Thiès Yékini waaw Sa Thiès Yékini ñooñu la ñooñu la assurance di laaj

Tigre Noir Mor Jaxate sama waay ji maa ngi lay jaar lu bari bàyyi laat loo maa ngi lay nuyu Jili Tarkinda Boubacar Silla maa ngi lay nuyu lu bëree bëree bëree bëri di nuyu coach su Jabon borom France di nuyu tamit Henri Camara rakkam Omzo bu Garga maa ngi lay nuyu Birane Meng di nuyu Cheikh bas di leen wax ne ngeen waajal suñu match bi le 19. waaw suñu match bi incha waaw Cheikh Bass ñu ngi si waxtaan tey suba rek. Mm-hmm. nee ko damay fubal de. nee naa ko damay fubal am na nag ku may tooñ naan maa mu may ndox comme Cheikh Bass waaye nee naa leen mayuma ndox. Mm-hmm. damay fubal comme ñëpp. Mm-hmm. di nuyu Leyti Seno Mbélu ngi di nuyu Laay bu def borom Sandaga di nuyu sama grand El Hadj Ba depuis France Modou Mbaye asalem nuyu naa képp kuy bëgg Lutte TV ñoo lay bëgg di la ziar. maa ngi nuyu tamit Abdou Bou Xarañ ak Mame Balla Gaye Fallou Ndiaye maa ngi lay nuyu lu bari di nuyu tamit ki nga xamante ne mooy Ndoye la Pikinois maa ngi lay ziar bu baax a baax am ngeen combat wala am ngeen ay combat du ma fàtte Abdou Lahad Kare Momo Sey maa ngi lay nuyu di nuyu tamit ñi ñi suivre ñëpp daal maa ngi leen di nuyu di nuyu groupe Lutte TV tuuti yaay Sarr Omzo bu Garga ak imam bi imam nag tour sa tur ba léegi xamaguma ko Mbaye Gueye nee na ma lamin jox ma seen numéro naa la ko jox incha allah Tafa Diaw maa ngi leen nuyu di nuyu Omar Sala di nuyu tamit suñu papa Omar Ngom saala borom documentaire yi. waaw grand Omar ñoo ngi koy nuyu di ko ziar dafa bokk si làmb kooku tey ku ko ku ko rapproché jege ko di nga gis si moom ay archive làmb yoo xamante ni tey mën na ko amee fenn Lamine mm-hmm. fenn fenn nag parce que dafa nekk ay archive yoo xamante ni euh, amul photocopie ay original yu mu yor tey kon kooku dafa yàgg si làmb yàgg dund làmb ñoo ngi koy nuyu di ko ziar Babacar Diop maa ngi lay nuyu Arona Camara borom Kaolack maa ngi lay nuyu Ngara Diouf Gambi sama xarit maa ngi lay nuyu lu bare bare bare di nuyu Abdou Aziz Mbacke tamit nuyu Serigne Mbacke Mbacke gëj koo dégg xam nga ci la mu nekk fan yi maa ngi lay bu baax di la ziar sëñ bi. waaw sëñ bi nag war a ko gëj a dégg nag Lamine boo ko gëj a dégg nga nemme ko ko xool si li mu nekk comme moom bokk na si ñi nga xamante ni tey dañuy teewlu TV di teewlu revue de presse yi hmm. di rafetlu liggéey bi ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccu waayam di nuyu waa Gambie yëpp di leen jox rendez-vous suba incha allah